Boy Niang maa la ñaan un mot rek laa la ñaan. waaw nuyu naa la. gisee tey Ama Baldé. waaw dara. yëpp rek pour man pour sa ama kon ni nga ko waxee rek. waaw moo xam na nu mu demee bu a waaw xam na. waaw bu ñu bu ma la ma jàpp. waaw boo a jàpp boo ñaaw a jàpp. jàpp rek ànd bokk ndey bokk baay xam nga. lu leer lay demee Malick. waaw barke sëñ ñaan yàlla def jàmm. Pikine ñu ñëpp dañoo bokk ndey bokk baay nekk ay frère li nekkoon ci ginnaaw jeex na li ci kanam lañuy xool ama comme li mu wax ko fekkee fee dinaa ko dafa sax du nga ak sax boo xam ne nu mu demee te doomu mbër la gi la ko fekk ci gaal bi mu demee bu baax a baax a baax day ñaan suñu bopp defal ko jàmm bu baax dafa ko ndax xam naa nga di wax Pikine waa yëpp nag ñu nekk ci ginnaawam dëgg la ñoom ñëpp ñu jàppale ko ci fair play nag jàmm ak salaam su moom def jàmm ñu am daal ñu yëpp ndey bokk baay xajul ci kenn tey dama ama seen soxu ah ah mais dafa cere ndawal cere ndawal fan lañ koy lekkee cere ndawal ñu koy lekkee. bii ci biir état de forme état de forme ndeysaan waaw booy ñaan nee na cere ndawal bi Pikine lañ koy lekkee. booy ñaan nee na cere ndawal bi Pikine lañ koy lekkee lañ koy lekkee déggoo lu ma la wax de. ndeysaan Idriss la forme. booy ñaan de nee na cere ndawal bi Pikine lañ. Ah, waaw ah, so Idriss la forme. maalo ngi nii maalo Pikine maalo booy ñaan. la la li am li am tey dafa neex li dafa neex Pikine waa yëpp. waaw ñoom nii lañ war a continuer. dëgg la mooy mooy jàmm mooy am ta Pape Sarr. Eh, Pape Sarr ñëw na. Pape Sarr la ambassadeur de Pikine. xam nga lan laa woote. waaw pour cent pour cent pour cent Pikine. waaw waaw waaw te ñoom fekk si nañ. non damay wax démb la. booy ñaan ngi nii. waaw Iba Kane booy ñaan ngi nii. waaw drapeau boobu ma tuddee ama kii jël drapeau bi indi ko. waaw tey moo defar. daa rafet moo defar Pikine barki Seydina Mouhamed. boo xoolee quatorze victoire. waaw daa rafet benn ndaw moo fi daal. quinze quatorze victoire quinze. mbër daanu bi ngir yàlla wala suuri. ngir yàlla nañ ñu bàyyi nañ ñu bàyyi si kenn. billaahi ba Pape. waaw yow mention spéciale Pape Sarr. maa ngi tànn set fu <laughs> yaa ngi dégg bari nañ bu ñu limee sax dañuy juum képp koo xamante ni waa Ndaayani ñoom Mor Baru gaayam mention spéciale quoi gis nañ taxawaay bi parce que ñoom bëre wuñu amuñu rax bu ni amuñu ndigaay bu bëre mais ñoo ci gën a sonn donc ñu leen wax mention spéciale gis nañ li ñu taxawal seen rak ñu jàpp bokku ndey bokku baay Pikine Dakar lamin Boy ñaa Ambu Boy Niang ñu bëggee ñëpp jéeri Daawur Njaay waaw bëri ah, avion bëri avion ah, ñu ngi leen di bëggee ngeen naanal jàmm bu baax a baax di leen ni comme ni ko jàppee nii la gis nañ suñu borom ni mu tegale ay ndam yàlla nañ tegaat ndam ñu ñëpp amiin ñu ñëpp dañoo am lu ñu amee yàlla def jàmm ñu bokk ndey bokk baay incha allah mais yow tëddoo nelaw de non loolu ma tëdd nelaw yab gaa yi wala ma yab gaa yi

di sox. tey xoolal ko man man leen rek Wow. benn question rek laa lay Wow. wax. waaw lu tax ak lu làmb. am ñoo xam ni. waaw. ay dañu bu ñu sañoon Pikine jaxasoo. dëgg la. te ci làmb la ñuy liggéey. moo ma jaaxal lan la leen Pikine def. xaw ma nee ko Pikine liggéey ko jig sax. Ah, ah. boo demee ba ba nekk ci presse. war a boole dëkkub jàmbur. Ah, nga naan Boy Niang Wow. naa dajeeg Ama. Ama war naa dajeeg Eumeu Sène. waaw xaalis jaru ko. ñun Wow. bu rafet moo ñu ko gënal. vie jaru ko vie jaru ndok. waaw. lii nu gis tey dina tax ñu rus téye seen làmmiñ dëgg la man saa ñu noppee wax Pikine dara ma taxaw wax leen ne li ngeen wax du dëgg nanu bàyyi pikin nekk ci jàmm Pikine lii la xam yàlla nanu yàlla lafal ca mais caax yi miin nga ko de tànge taagu daal samay <laughs> ah, ah, ah, daal réer na ba <laughs> tàyyi <laughs> caax yaa ngoog nee na ma jël waxal boo ko wax si Ama Baldé. waaw li ñuy wax moom xam nga mooy loolu jiri suñu jabar na plus bas. déedéet déedéet déedéet woddal wax bi wax bi a wax bi jaar naa la. waaw man delloo naa la ko ah, ah. yaa ngi wax ak président supporter fan club Ama Baldé. waaw waaw ginnaaw bi ñu sant yàlla di gis Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi gërëm waa Pikine bi yëpp. waaw ñu gis nii dafa sedd suñu xol ndax Pikine benn bopp la kenn mu mënu koo xar ñaar ñun nag ñun nag am na loo xamante ne ñun dañ cee bokk te ñun maanaam li ñu bokk ñun kenn duñ ci xaar kenn duñ ci def nañ bàyyi si seen beeg iñaanante beeg soxorante bi te xam ne Pikine benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar tey gis nga ëmma ah. seen génn kii ñëw ñu koy wax Prince ñëw Boy Niang ñëw Ndiaga Diop ñëw Sokh ñëw Valdo ñëw mbëru Pikine ñëpp ñoom ñëpp ñëw lii lii xam nga dalul sa xel dara ah, dootul dara dootul la doy dara dootul te Ama moom li koy xaar xam na ko ah. li koy xaar xam na ko dañ koy ñaanal yàlla ko yàlla may ndam ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf amiin waaw eh benn Baby, waaw moom laa am kon kon kon matu matu nuyu naa matu matu matu matu nuyu naa matu nuyu naa la. fay naa la mais matu noo gisee Ama Baldé tey. gisaat naa mel ni mu bees tàq tàq laa sax mu bees tàq ci forme bi ci état bi waaye mu war a dajee ki nga xamante ne mooy le troisième tigre de Fass dëgg la waa Fass yaakaar ko waa Fass yaakaar ko ñu ne posé question ah moom mooy ko kan moom